Euh, xeetu parasites yooyu ñoo koy joxe donc euh, campagne bi aussi mu tombeek vraiment population mu nekk une demande aussi vraiment parce que gouverneur euh, ñëwoon nañu wax ñu carrément que ni population yi daal ñu ngi doon ñaan bu fekkee mënoon leen permettre vraiment ñu defal leen benn campagne de saupoudrage loolu dina baax su ñoom parce que weññeek yooyu ñu leen di commencé di sonal bon loolu aussi fekkoon na sax mu nekkoon suñu plan d'action parce que ñu jëkkoon nañu defoon benn campagne de saupoudrage avant hivernage bi ñu commencé noonu juste avant muy commencé juste defoon nañ ko mais bii nag moom comme léegi taw bi mi ngi dem bay jeex ñu ne xaaral ñu dorat benen opération bu ko défé euh, nit ñi mëna a nekk si jàmm euh, nit ñi du am benn problème donc comme ni ma ko waxee euh, campagne bi da fay toucher toute la région de Dakar donc nous avons dañu préférer ñëw fi ci Keur Massar parce que Keur Massar aussi buñu ñu ko ni ci inondation yi département bi gënon na sonn ci inondation yi hein? voilà donc bu ñuy xool aussi yoy fi la fii la wara gëna bëré parce que fi mo ëppoon ndox yu ta fi mo ëppoon ay bassin de rétention yu fess donc on devait xamoon nañ ne fi mom il faut que ñu def si ben opération particulière bu spéciale mom lañu def ci fii opération bobu nak comme ni ma waxé euh dañuy pomper dañuy poudre waaw poudre bi nak mom buñ ko waxé xamna naa lañ koy def sax à partir de 22 heures donc euh, dina fekk euh, peut-être ñi ñu commencé dugg seen biir kër yi euh, bu ko defee ñun ñu commencé def suñu poudre ci quartier yi. ñoo ciy gërëm président de la république bu baax baax son excellence Macky Sall di ci gërëm aussi Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale vraiment boo gisee équipement yu ñu yor fii yëpp ah oto yi équipement yi produit vraiment lépp doy na lépp mat na oto yi moom xëy na peut-être bon mën nañ ne xëy na du matalu fépp mais dëgg yàlla luñ ci am nii mën nañu permettre vraiment ñu def suñu liggéey correctement waaw donc vraiment ci côté boobu aussi ma bëggoon vraiment remercier le président remercier le ministre de la santé parce que gis nañu vraiment dëgg-dëgg nag nu ñu taxawoo service d'hygiène préfet sànq wax na avant service d'hygiène bon daanaka moyens yu bëri amuñu ko woon liggéey bi da doon sooxe mais fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla mën naa euh, la balle est dans notre camp <laughs> ñoo ci des quoi que loolu bëggoon nañu vraiment que euh, population bi aussi accompagné ci bu baax a accompagnement bi mooy euh, vraiment nañ tok seen kër yi parce que aussi euh, surtout quartier nga xam dañ koy poudre di nek en contact wala du noy poudre bi aussi bon mën na indi yenn problème yo xamanteni ci si xëy lu ñu gënal xalé yi aussi nañ leen téye ci kër gi euh ñam yi ak naan yeeg yoy aussi nañu fexe bu murku bu baax parce que poudre la bu jóge ci ko day wacc donc mën na dugg ci biir ñam yi mën na dugg ci biir ndox mi indi ci yeneen problème yo xamanteni ci xeyna xëy na nekk lu woon lu ñu lu gënal quoi